yi ba tey rek euh, booy Seye numéro de ak saa bokkal gis ngeen initiative bi nga xamante ni euh, moom moo moom moo tax tey ñu ñëw fi ndax nee naa la euh, weeru koor saa yu jotee bokk na ci weer yi nga xamante ni lépp loo daan def benn rek boo ko defee benn suñu borom daf la koy fulal ba mu nekk fukk te ku xam Boy Seye numéro 2 xam code code de popularité bi mu am ci Kër Massar ku xam saa bokkal xam code code popularité bi ci Kër Massar kon jaadu na su weer bi ñëwee ah ñu def ay ndogu jox ko ñi nga xamante ni ndogu da leen di fekk ci yoon ba pare baalu àq seen i fans ak dëkkandoo xama jëkke ci sa bokal sa bokal ma lay ziar dem dem ma lay fay ni kan ngeen ko sangsé ni wër ma ni do ngeen ko bëgg no non kenn doon dara ya ci japp sant alhamdullilah ginaaw mo wara initial ginaaw mo sant yalla julli seenante bi sant suñu ñaari wajur di gërëm ñu fi ñëw ñëp di leen sant bu baax di gërëm suñu fonk kala bi ñu fi taxaw suñu ginaaw xam nga ni gëna wakar massar ni muy monde entier ñaan sénégal yeen fi jamu yag di ñaanal ñi fi ñi fi tew ñëpp xam nga ñu fi ñëw ak ñu fi ñëw lépp ak ñu fi amoon yéen a ñëw ñu leen di jaajëfal ba wér a wér te rafetlu bu baax a baax tax en plus yéen seen teewaay vraiment tey lii nga gis ni tey ñu def ko nii Kër Massar dafa rafet ñu def ko parce que ñun suñu amee combat ñoom lii sonn si ñun trop waaw te kon yoon luñ delloo la njëkkoon lii ñuy def nii sax ndaw na ci ñoom trop mais dafa baaxu jullit su mu mel ni amatee dafay baax nga nga si wane sa bopp loolu kese la mais du leneen ñu gis maam na Kebe bay ay yitteem yëpp ñew ak pap maam na Kebe sunu nit la te ñu ne moom du politique politique bolé wuñu pap mi suñu ndo la mais suñu grand la tamit aussi na depuis bu muy nek bu nekké xalé bu léegi ñu ñom ñoom ñooy ànd ñu nak mom ñoy and kon rafa na bis bu mel nii su amé nu woko mu ñew tew ci japp ci comme nu ngui koy défé ci yeneen gox yëpp parce que mom jëlis bi moko ñor jàppale Kër Massar moo ñor xam nga ba tax na ñun lépp lu ñu dugg rek wala lépp lu ñu def rek ko ci woo pour moom ñëw participer parce que dafa nekk dafa amal njëriñ moom dundoon dafa am njëriñ parce que amal na njëriñ waa waa Kër goxam ba tax na ñun ñu ngi bu baax a baax ci teewaay bu mu teewaay fii si ñun parce que bëggoon na fi toog ba mu jeex mais dafa am fu bëri fu mu bëggoon dem Pape tamit kazalike mu nekk suñu nit bu baax nekk suñu grand wax dëgg yàlla def bu mu fi ñëwee ba léegi wàññiwul dafa yokku nekk nit bu baax nit koo xam ne nit ku nekk neexal mu nekk grand bu baax boo xamante ni tey say lu ñu am yëg-yëgu tok ak mom parce que sa yim tok ak mom rek xam-xam bu ñu jox rek ak doli bu ñu dolli rek lool rek doyna sekk ba pare am bis mu yëkkati alalam du ko def ci ñun ñun kooku amuñu fayal ñu koy ñaanal suñu borom dafa ko jamm suñu borom dafa ko tawfeex lu mu bëgg mo xam suñu borom dafa ko ko. Hmm. muy la solo ma ñëw ñëwagum ci euh, ki nga xamanteni euh, mom moy le lion de Kër Massar Boy sey numéro 2 ma lay seet. ma lay fay ñaga di ne jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëfe Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul ma ngi nuyu assistance bi fi tew yépp bi nuyu presse bi di di gërëm bu baax Pape bien bi nga xamantene bi daf ñu accompagner ci ay moyens bopam wo wa goxam aussi tamit ñu ñëw fi jappalé ko ci liggéey bi suñu wa gox tamit genn di nuyu bu baax mbay Pro borom Pikine borom Kër Massar wa borom Sina bu reuy wi bu am doole bi ma ngi jaar ba di nuyu ki nga xamantene bi bii Alaaji mënu mo wax té bolé ma ko su wax parce que daf ma débuté suma carrière suma carrière bo gisé mu réussir grâce à kii comprendre nga da sé sonu bu baaxa baax di borom bu baax baax Fadli borom Tana boutique borom Jesner borom nga xamne ne lu ñawul baaxul. ye man sama lamb bi mu dewe ba suma sonu mom ak jëkkëram Moussa Oro ñoo débloqué xaaliss bu bari bo xamne suma ko waxoon sax kenn duko gëm jox mako fatli Fadli ak Moussa Oro ma leen di gëreem di leen ñaanal jamm ci wëru koor bi diko ñaanal Père mort Père mort bi ngeen doon dégg mako wax signature yi borom boulangerie ki jënd auto yi di jappalé jeune yi ñuy liggéey nga xamne ñun namuñu maire namuñu politicien boulangerie bii moo ko moom ak bële ak bële ak bële ak bële oto yi ngay gis ñuy romb yëpp moom moo ko jënd jox nit ñi ñuy liggéey kon donc kooku mënuñu fi toog te gërëmuñ ko aussi tamit di nuyu bu baax a baax waa Kër Massar yëpp njaga di nuyu presse bi yëpp vraiment lii suñ ko defee geste la rek parce que fii mënuñu fi jox nit mu ndogu fi lu mu amul mënuñu fi jox nit mu peut-être ñi ñi nga gis ñu toog ni suñu ginnaaw ñu fi taxaw buñ demoon seen kër ndogu ndogu yu gën a riis yi lañ fi def mais lii geste la ak baaluwaale ak waa Kër Massar parce que dañ leen di ameel ak suñuy bëre bruit bi day bari dérangement bi day bari parce que rax yi day bari ku nekk xam nga yaa ma gën a xam donc kon dañu ñëw rek pour def ko pour baaluwaale ak nit ñi mais defuñu ko pour jox kenn mu lekk parce que mënuñu jox kenn mu lekk xam la dañ ko def pour baaluwaale ak ñëpp di nuyu ñi nga xamante ne bi ñooy dëkkandoo yi mënuñu tudd tur cité di nuyu sa xarit bi nag borom Aliou Couture waaw di ko nuyu bu baax a baax a baax di nuyu bu baax a baax jeunes fi teew yëpp di ne Pape Dieng amuñu fayam Grand Médine la dëkk mais Kër masaar la dëkk man la su ma waay fii fii nii gox bi nii événement yi fi gën a rëy moom moo fi organisé su lii ñun ñoo ko def mais suñu xaalis demu si pour te dire pour mu leer moom moo jël xaalisam yëpp def ko si comprendre nga di gërëm Gana Kebe tamit bu baax a baax di ne waa Kër masaar nañ ñëw jàppale ko parce que jeune la bu am ambition jeune la bu am yéene ci jeune Kër masaar yi jeune la bu bëgg jàppale jeune Kër Massar yi bi tak tak yi bare ciow li bare dafa ñew dajale boy ne len bu ken tal bu ken yak seuf ñepp na tek kon lu fi mom motax mu wax rek gaay nopi di nuyu sama doomu nday suma xarit sa bokkal nga xamante tay man mënuma def dara te mom bokku si mais mom mënul def dara te man bokku ma si parce que ay nit bo xamante yalla da leen boole bokkuñu la dekk ma dekk ma dekk daaru ñu dajé kër massar dem ba bokku kër bokku lal bokku nek bokku yéré bokku dal. kon loolu programme suñu borom la di ne nañu nit ñi ñaanal ñun suñu ànd bi ànd ñu ngir xaalis ànd ñu ngir làmb ànd ñu ngir succès ay yooyu noonu ay retaan la ñuy def ay retaan la def comme li gars yi di xëccoo noonu ñun ànd ñu pour loolu moom su amee combat man du ma du ma lekk te du ma xiif du ma naan te du ma mar du ma nelaw te du ma gëmmentu man tamit moom tamit noonu. moom tamit noonu xanaa xam nga looloo tax des fois dama leen di xalaat yéen ñaar ndax damaa gis yow xaritu Balla Gaye numéro 2 moom ma gis xaritu Eumeu Sène la. waaw waaw ñaar bu Balla Gaye Eumeu Sène bu ñu bëri noonu koy dundee yéen ñaar. mooy li ma la wax rek ñun da ànd àndewuñu ay bi ñuy xamul man xawma suñu dugaluñ ci ay ay Balla Gaye ak ay Eumeu Sène pour te dire vrai suñu ànd dugaluñ ci Balla Gaye dugaluñ ci te ñaar tamit dafa jar taxaw parce que gis nga Eumeu lu rafet rek lay wax ci man sama combat bi passé bima daané sa saa bokkal dafa yobbu drapeau man ak mom mu yëkëti xaaliss mayam Balla Gaye démb gisoo ko mu toog si plateau bi gërëm saa bokkal ne saa bokkal lu rafet rek wax si moom te Balla saa bokkal bi mu fi amee nattu Balla Gaye daf ma doon woo chaque jour di ko nemmeeku tey yàlla mooy dogal nit di bëgg nit loolu yàlla moo koy dogal mais ñun ñu ay féeg duñ ay défiant ñun ay mbër lañ ba pare ay jàmbaar lañ dañ saa bokkal la moo tax mu dem si Eumeu Sène Eumeu Sène Eumeu seen ñi nekk écurie yëpp da leen bëgg fonk leen respecté leen jox leen cër seen jikko moo tax mu jàpp leen saa bokkal moo nekk nit koo xamante ne bi soo ko defalee ñaar yu baax kenn noonu lay jàppee nit dafa mën nitam du tricher même man aussi noonu xamuñu ko quoi xamuñu ko mooy wax ñun doo ñu gis sax ñuy fréquenter ay mbër yii nii xam nga doo ñu gis ñuy dund yooyu ñun ñun dañoo gëm suñu bopp dañuy liggéey mais nag ku si nekk ku la yàlla booleel nga ànd ak moom sànq dañoo taxaw fii mu wax si Balla Gaye lu rafet ci signature démb ba te Eumeu Sène la faral du degg donc tey ñoom dañ leen di ñaanal jàmm ndaxte ñoom ñaar ku si nekk da ngaa communiquer wax sa morom lu rafet kon nag ku ci communiqué wax ci lu ñaaw nag yaa ci des ñun Kër Masaar moo ñu ñor saa bokkal mbëru Kër Masaar la eh. keneen ku ñëw nag baax na waaw mais mbëru Kër Masaar la man mbëru Kër Masaar laa ñun Kër Masaar la ñuy représenté waaw Kër Masaar ci kanam di wax jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul waaw ndaysan damay joxale sa bokal rek mu daal di tàggatoo waale mais li Boy sey numéro 2 yakarna ni wax euh, dégg nga ko ndax mbok nday mokay jur am na ñoo xam dañoo yaakaar ne yéen ñaar sax da ngay na bok nday ak bay gis na ben témoignage bu mak euh, guy gi def ko ci yow néna bo andek ànd sen nit ñew di tëkk Eumeu sen do dox sen diggante do xajamal da ngay rétan rek yar gogou ak nité gogou gaay yëpp séré ko ci yow wa mais sant yalla rek euh, nit mom su nekkee ci aduna fo nga am kilifa te yaakaar naa ni Eumeu Sène euh, Boy Sèye mi sama diggante ak moom dafa yàgg du tey depuis bu mu nekkee xale ba léegi lu mu wax na lu dëgg la de ñoo bokk lépp ñoo bokk lépp lu ñuy def li may du def li ma yëgu moom man tamit du ma def loo xam ne moom yëgu ko ñun ñoo bokk ndey baay parce que lu mu wax ni dëgg la de sama papa ak yaayam du ñu déggante événement su amee woo yaayam dafa may woo téléphone yaayam sama yaay sama papa da koy woo téléphone woo ko ci événement bi historique moom su amee xaalis day moom day jox sama yaay xaliss événement ñëwee man tamit nonu mais nekul lu ñuy wax wal ñu koy ñu koy lu ñuy jëf la quoi xam nga fuma waxé andu andu andu bu dëggu andu andu bo xam ne bañ a nekk ci santé xam nga fuma waxé mom dama koy baax suñu borom rek suñu borom moo ñu boole yal na yàlla defal jàmm suñu borom defal ñu tawfeex guy gi tamit aussi champion da nga koy dara dal parce que champion la en plus mbeur la amoon la fa mësa wax lo ni ma nit so nekk ci aduna wala nga nekk mbeur champion soo ko gisee da nga jox lu mu cër gu mu moom ak suñu borom moo ko jagleel soo bëggee nekk champion respecté ko cër gu moom loolu moo ko def ci moo ma yaree noonu ni ma gis def ko ni sa bopp champion boo gis mu nekk mbër def ko jox ko cëru jox ko cëru cëru cëru champion bu ko suñu borom jagleel pour nga mën nekk champion mais fekk na nga gis benn champion boo xam ne nga koy dir mbaga wala nga koy wax naka su dul te xam nga def na fa loo xam ne yow defoo ko loolu taral sa bopp la pour man pour man yow bëggoo bëggoo bëggoo lu baax man noonu laay loolu Eumeu Sène moo bu baax a baax prix bi moom dafa baax rek mais tamit nag nit àdduna soo si nekkee bul baax ba mel ni suukar ba ku la jot rek màcc mais bul bon tamit ba mel ni kaane ba ku la gis rek demuy. diggante bi ngay nekk diggante bi rek ngay nekk waaw. <laughs> mais man gisoon benn ràllis bu taxaw fee ci ginnaaw ma daw di ko yëndu yaakaar ne Eumeu Sène daa ñëw fii sax. waa mbër waaw bëggoon na ñëw fii de. mais <laughs> démb bu ñu guddee. Ah, ak Balla ay 5 heures du matin la bi jeex. moo tax mënul ñëw. xam fi lu mu wax noonu dëgg la de muy Eumeu muy Balla ay champion lañu suñu borom moo leen boole ñu war a bëre mais kenn ku ci ennemi làmb la rek boo xamante ni benn tàkkusaan la xam nga su jeexee jeex na. mais boo leen ciy werante yéen ñaar si werante sax. Eh, da ngeen di noonu. kenn du kenn du kenn toog sax si morom bay wax si si ba mbëru mbër naa ko nii sa mbëri mi ñu wala sa mbëri ma laa. même sax même su fekkee sax moom farul euh, farul kii sax. waaw farul euh, Eumeu Sène wala farul Balla Gaye sax. c'est du toog sax comme sax ça damaa ngi gis ay nit supporter xam nga supporter dafa métti. kenn dan mbërëm mu ci wax lu ñaaw sey mosuma ko gis mu def lool au contraire dalay encourager sax nan la làmm non mais du du du nek di xass nit naa ko sa mbeur mi ni wala sa mbeur mi nu mel wala am amul amul amul philosophe lu rafet liko ko ma seen di defar ci teraanga yi. parce que xamul ndax man fima ma ne sama nit dafay nek tak nit ku bax ki ma xam fekkee lu may war sama digënde moom lu dëggu la moom daf ko wara xam lu bax lu may defal moom mu def ko parce que am sen mu gëssé dafa nako fi sa kër na ñëwal sa yu bëggee ñëw ñëwal mu am mu daan jël drapeau bi dem galle mbër mbër defal ko teraanga amana mo na ko bañ wax mais euh, dafa nek nit bu baax rek am fa waxe sey ma mom fepp fuma dem wala lepp lu ma gis lu baax rek mo dama koy damay fekk mom mu am lool parce que lool moy suma fierté mo tamen lool moy fierté suma digënté ak moom maam suñu and mu ñaar lool la da affaire ay ay homosexuel la wala balagay la. deug na sax deug na sax dañ ko doon waxi jabar mu ne non non suy tak jabar yeen ñaar yeen ay takando waaw te yeen ay bokk benn kër gi ngeen di takkee. waaw lool lool <laughs> jërëjëf <laughs> bàyyi ma def si code ay ca gars yi ni la demee woon Boy Seye numéro 2 sa bokkal mooy ma gërëm mooy ma gërëm mooy ma gërëm 2000 mooy ma gërëm Ibrahima Ndiaye maa ngi koy maa koy gërëm bu baax mu nekk nit koo xamante ni saa yu mu amee combat da ciy jàpp da ciy sonn bu baax a baax wax dëgg yàlla mooy nuy suma copain suma lépp eh, mu nekk suma nit xam nga ñun ak frère la muy Zeki mais moom bu mu ñëwee ba léegi dara yàqu ci dara xam nga ñu koy jaar bu wér di ko bëgg bu wér a wér di la bëgg yoon tamit aussi di bëgg yéen ñii yëpp wax dëgg vraiment kontaan nañu ci yéen ñu leen woo rek ngeen bàyyi seen yëpp yëpp ñëw di gërëm sama copie bi alaaji alaaji Socé mu nekk suñu waay nekk suñu xarit nekk suñu lépp vraiment ñu koy jaajëfal vraiment kontaan nañu a baax ay li booy say wax dégg ko waaw waaw dégg naa ko non macha allah lii mooy àdduna waaw man ak ñoom du tey depuis xale la depuis mbapat la woon ma doon ànd ak ñoom wax dëgg yàlla dara ñaaw si ba tey mu ngi rafet mané di ñaanal luñu bëgg ñom ñoko xam seen aduna yal na leen ko yalla defal ci barké alxuraan wa luñu jublu ni yal nañ ko yàlla defal ñu dugg seeg jamm génn seeg jamm parce que li moy Sénégal pays de la teranga fa so xolé tay li ni so xolé tariha yépp ngi fi kon li moy aduna mbolo moy doole kon dañuy jappalanté rek ñoo fé la force te aduna amul solo te nit nitay garabam wala wërsepp nit su loko joxé yàlla yàlla moo ko jox nit boobu noonu kon da ngay fonk nit te ñun dañoo respecté nit waa di ñaan Sénégal am jàmm. looy ñaax waa di ko ñaan waa di di leen ñaax rek ñi gën a yokk entraînement bi parce que soo leen xoolee am nañ fit bi am na jom am mën nañ bëre. waa ñi yaatu yaatale rek ku ñëw ñi fad la. waaw loolu mooy yëfu Baye Fall quoi te ñun noonu la ñuy dundee ñun yàlla dafa def ñun Kër Massar fii lañ juddoo fii lañ yaroo fii lañ màggee ñun amuñu fenn fu dul Kër Massar ñun ku ñëw dañ lay voilà noonu la demee kon wax dëgg yàlla ñoom nañ yaatu yaatale rek gën a jàpp ñu xam ne ñoom ay champion lañ lépp luñ bëgg si làmb ji suñ ko gëmee rek dañ koy am incha allahu rabbi yàlla baax